ak Serigne Saliou Diakhaté doomam léegi nag nañ ceewlu dafa am lool nañ ci bàyyi xel gis ngeen jëmm ji to ñun ñëpp boo xoolee jotaay bi boobaak léegi dégg la def muy Cheikh Saliou bu mii soo mu san dégg kàddu Serigne Touba Cheikh Saliou bu nee dee ah Cheikh Saliou bu rekk daan jottali kon nañu maase ànd ak dal ak teewlu ngir jëmm ji buñ ko nee jàkk gis Serigne Saliou di ñaan suñu borom yàggal ko ci jataab Cheikhul Khadim ah mu mel ni nag lu musul am bu amee am na lu ko waral Cheikh Mahamadul Fadal ibnu Cheikh Mahamadul Lamine mu egsi léegi mel ni jataay bi dafa judduwaat ku doon wax rek jox ma addiyee déglu ngir sëriñ Saliou Mbacke ku ko def de yàlla na nga fekke déwén dama ne bi jataay bii dem bay nuru luy jeex ca la sëriñ Fallou ibnu Cheikh Mahamadul Lamine egsi li ñu war a leeral bis bi neex na ba noppi na mën a demee népp demee na ko ndax sëriñ Abo moom sëñ Moussa moom sëriñ Saliou bi sëriñ Fallou egsi dafa sumi mbaxanaam te maamam la ñuy sant sëriñ Saliou du dëgg loolu moo ñuy intéressé ñi sant Mbàkke li mosuma dem ci barab ba dégg ñu ne nañ leen déglu ñoom ñooy déglu te exemple te sëñ sëñ Bay Jaxa dafa wax ne ndawal sëriñ Touba luy bootu mag mu fasoo trox ma koy lux mbootu jàkkaarloog ak Cheikh Ahmadou Bamba ne ko Ahmadou boo xamul lii sa ayib dinaa la wax lii sa ayib ñàkk moroom mooy sa ayib ji ayib nag du la ko Ahmadou boo xamul lii sa ayib dinaa la wax lii sa ayib ñàkk morom mooy sa ayib ji ayib nag sëñ bi na tekk mu ne ko loo diggee ak loo defa yam loo mas a wax gis nañ moom defalu koy wàcc waxam sëñ Fallou biñ may jox kàddu gi dafa war na jóg. barke Serigne Touba mu teree la ma ko toogaat ne ma nañ déglu sëñ Mbàkke moo sëñ Falloum sëñ Xale ak Abdoul Fatah ñoom ñëpp war maale ko ngir la ma bokk ñoom Serigne Touba man tàngoor woowu laa jógee te sama maam Serigne Mbàkke Saloum bi ñuy sanc marché Ocass sëñ Fallou ko goral ne ko bàyyi Serigne sagar du sori bi seen taggal lu la neex fii ci marché Ocass kon war naa maan defaraat cantik ba lépp yeesal Mouhamed di sama rakk waaye nag problème bi benn képp la muy Serigne Chouhaïbou Cissé mi ak Amsatou Sylla ci mag yi ñi nga xam ne ñun ñi jaar ci loxo yi sëñ Tuubaa Seex ñoom bu leen neexoon na cant gi na jeex te day jeex pour wax la nag cant gi dañ koy organiser waat ku solu dal rek jàpp yor satala ba ñëw ci barab bi jëmmi sëñ Saliou moo tax nga ñëw kon bu sëriñ Aboo toog di doomi sëñ Moussa sëriñ Saliou sëñ Saliou si jataay bi dëgg li ci coow li coow li nag diggante sëriñ Fallilu ak sëriñ Saliou Mbacke Mouhamed jógal taxaw bul toog man su ma ñëwee cant gi beneen façon lay doon waaw Mamoun euh, lii door na ko àddee ji jiitu na bis bi keroog moo Mamoun loo mën na ma sëriñ mbakki boo jëlee rajo bi fukki junni laay njëkk a joxe moo ko wax avant bis bi def na ko lakk saraftu jërëjëf Mohamed wa merci compréhension nag toujours ci kaw situation large champ calé toutes les portes sëñ Fallou baas bi damaa toog fële gis gaa yi waxtaan muy neex ku ne di yëngu ñu ne màggal gi génn la kan moo ko woote Cheikh Modou Fadal wootal ko Serigne Touba kan moo demal Serigne Touba màgg Serigne Fallou ku tax ñuy màggal yi Serigne Fallou kon jóg leen sargal Serigne Fallou ku sopp Serigne Fallou Mbacké jógal taxaw Serigne Fallou la koy tàmbalee sargal alaaji Fallou ibnu Cheikhil Khadim baax na toog leen yéen ñëpp cant gi day judduwaat bu ma kenn dakk na ñëpp toog toogal ngir yàlla ak jëmmi Serigne Saliou Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni dafa wax ne Ahmadou Bamba ci xol leneen da caa xajul ku fab leneen def ko ci day yàqu xolam. Mamoune Lo Gaydel maa la wax sànq indi leen micro bi ma defar cant gi maa ko ko wax léegi. jigéen nag góor ak lu mën a doon sëñ Fallou minicar dalal ak caay ji yow yaa ndaanaanu Serigne Saliou Ndakaaru tuubaal lépp mini compréhension nag toujours ci kaw situation euh, sëñ Fallou sëñ yow laay gërëm ak Mouhamed xaadim bi mu jógee àll yi mu jógee ko gis xam li muy wax ci dënn bi la nekk waaye nag barab bu ne kamanoon ci démb mooy man ci tey yàlla suturaal sëriñ Touba ci Serigne Saliou lim noonu mooy sama doom achaale doomi Serigne Touba yëpp dem ba mu des ci moom cundum ko naan doomi Serigne tubaa sëriñ Saliou ngay joxar bi gisul ndey gisul baay gisul rakk gisul tub jigéen wër taalibe yëpp doon seen baay di seen nijaay achaale wéetoon na lool ba am naan ñi ne ci dëkk bi di defal lu naqar yàlla bàkkaar yi def ak li ñuy mooy day wàcc sama yaram ba mel ni maa koy yëg kooku mooy Serigne Saliou sànq ba léegi lu nekk ngi jóg bàyyi laat say ngi nii mooy sama manager doomu sëñ Cheikh say mu sëriñ so day fekk baasub jàmbur mu yónnee ne jox leen sëñ Mbàkke Murid mu waxtaan pour wax la ne boo ànd ak say bokk dara méttitul Cheikh Tidiane si bu sëriñ Babacar si dafa wax ne fu ñuy concourir nelaw ku fa dee jël coupe fu ñuy ku fa dee jël coupe ba Cheikh Bass Gueye anamu sànq dégg naa ko waaye nag ku ànd ak sëñ Fallou it yaay am xorom almaxtaar jenn course sociale embouteillage beeg circulation beeg lépp maxtaar la du dëgg Serigne Issa doon jenn maxtaar di jenn al la xalxa misloo Pape Mbaye nga xam ne buy ñëw day rafet kenn képp li sëñ Mamour mu sëñ Fallu damaa bëgg càmm teraanga gaa yëpp maa leen gis Daouda Mbaye LVA yaa ngi noonu di laqatu jàmbaari Cheikhul Khadim Daouda mën naa ñëw waaye li li mus am laa bëgg maam sëñ Matar Jenn damaa bëgg kenn ndox sama digg moom mu dox ngir Serigne Saliou ñëw ñu jàkkaarloo borom Jenn bu mu yónnee na ñëwal boppam ngir Serigne Saliou Matar may leen ko yoon wi Lamine jóg leen yoon yi Matar Jenn ñëw bu ñëwee cant gi neex moom da ngeen da ngeen di sant cant ba mu cant cantantu may leen ma mataar rek mu egsi bu egsi rek lépp la almoxtar maam da naan naan sàngara maam sëñ mataar jën egsi xam-xam ak lu mën am mooy xoratoy ni mooy sëriñ soxey bu Mbàkke sëñ soxey bu waxal ñépp ndegam yow siisuloo sëriñ Mor Mbay Siise di si wayju ne sant nañ sëriñ Saliou waaw ah. waaw. Ah. Ah. waaw. Ah. waaw. sëñ Cheikh Seye kay fa laay tëjee jotaay bi doy na sëkk sëñ Fallou Seydou toogal ma tëj jotaay bi jeex na. l'argent calait toutes les portes mais climatiseur bu seddee nga dem dallu ji déglu ma tuuti rek. minicar jógal taxaw jógal taxaw yaag sëñ Xaadim yéenay jàmbari Serigne Salim ana sëñ Xaadim jóg leen taxaw ngumb jógal Serigne Salim Mbacke dong yaa ngi nii. jógal alxaadim xaadim jógal ngir Serigne Saliou yéen sëriñ seq Serigne Saliou baax na nag sëñ Fallou li mu lay tëjale jataay bi mooy Sidi Maxtaar dafay jóge la doomu Modou Maxtaaram sëñ Cheikh Awa Balla la sëriñ Seexu naa jàmbari sëriñ Samdu la sunu mag mi ngi nii toog li ma lay tëjale jataay bi sëriñ fallu Mbakke ah? sëñ Abdoul Ahad Jili sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp ñu ngi leen siyaare lu waay di wut lu waay di bëgg balaa gaaw demal ci Serigne Fallilou Mouhamed ay atam bëriwul waaye nag ku gis waa kër Serigne Fallou ni ngeen ko wuysee rafet na Cheikh Tidiane nag dafa wax ne fu ñuy concourir ne la ku fa dee jël ko. ay Cheikh Soyibu dafa am ku yónnee muy le ministre Matar Ba taalibi Cheikh Abdoulaat Serigne Moussa Be Bousso la yónnee Fatick la jóge ci Matar Ba ndax dafa am xew wu rëy wu mu amoon ne sëñ Mouhamed kenn la ci moom. mu feggoog sëñ Babacar Ndiaye Daaru Salaam Couture di taalibe sëñ Bamba waaye nag maa ngi jël sama kàddu